أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ñu ngi tolloon ak yéen ci histoire Yuusuf ak Yaaqub alayhi salaam ñu ngi toll fi xale yi xalaatee ne dañu war a dem ci seen papa waxtaan ak moom ba convaincre ko pour mu bàyyi leen ñu ànd ak Yuusuf ñu mën a met mottali seen mébét yi ñu xalaat seen pexe yi ñu tëral mu ne wa huna badaa yufakkiru ixwata yusuf alayhim salaam alayhi salaam nee na fii la gaa ñi tàmbalee xalaat mbokki yusuf yi fii xiilatin maakira ci pexe bu ñu fexe li yatamakkanu min xilaaliha an yatanazzau yusuf min xadni abihi wa yataxallasu minhu ilal abad mu ne fii lañ tëral benn pexe boo xam ne danañ mën a nangu danañ mën a rocci danañ mën a sempi yuusuf ci keppaaru baayam foofu la ñu pexe xalaat xalaat yooyu ngir ñu mën a wéet seeni kanamu baay ñëw nañ ci baay ji ne ko yaa abana maa laka laa taamamna ala yusufa wa inna lahu la nasihun baay lu tax yow wóolu wooñu amoo kóolute ci ñun ñu ànd ak yusuf lu tax loolu lu tax ñun wóolu wooñu ñu ànd ak sunu rakk sunu mbokk sunu doomu baay ñu ànd ak moom lu tax yow wóolu woonu te ñun wax dëgg yàlla duñ ko wàññi dara dañ koy laaye bii rek bu ñu ànd ak moom limaza taxaafu ala yusuf lu tax ngay ragal ci yusuf wa nahnu ixwa ñun ay mbokk lañ wa nuhibbu lahu lxayra ñun bëggal nañ ko lu baax wa nansahu lahu wa naraahu ñun dañ ko laaye bii dinañ ko sàmm yemuñ ci wax lii waaye dañu waxaat alxuraan dañu ko nettali ba tey ci même saar aya 12 ginnaaw aya 11 ñu ne bàyyi arsilhu maana gadan yartaqa wa yalab wa inna lahu la xaafizun nga lawaay bàyyi libéral xale bi yónni ko mu ànd ak ñun na ñëw ànd ak ñun ëllëg suba xadan mu foo cëppi cëppi dugg ci àll bi witt ci fruit yi lekk ci sangu ci dex yi wa inna lahu la xaafizun ñun danañ ko sàmm libéré ko suba mu ànd ak ñun ñu dem ci àll ba ngir mu lekk ci garab yi mu bànneexu ci nature bi mu fo ànd ak ñun loolu sax dina ko indil wérgu yaram ndax day defaale sport ñun ñu teg ko suñuy bët surveiller ko ci lépp lu bon lu ko nara laal bi ñu waxee lii seen baay faradda alayhim abuhum yaqub alayhi salaam qailan seen baay daal leen tontu ne leen li ngeen wax de du rafet la ndax mag ànd ak rakkam yóbbu ko ca àll ba mu foo ñu wittal ko ci garab yi mu lekk lool de ru rafet la waaye nag inni la yaxzununi an tazhabu bihi wa axaafu an yakulahu dhibu wa antum anhu xaafiluun man de wax dëgg yàlla leen rek laay ragal dina ma metti trop ma libéré leen xale bi ngeen ànd ak moom li ma bëgg li ma ragal daal mooy an yaakulahu zibu till yi lekk ko wa antum anhu xaafiluun fekk yéen jamono boobu till bi di ko lekk till yi di ko lekk yéen da ngeen ko sàggane mën ngeen fo bi mën naa ëpp ngeen fàtte ne ànd ngeen ak xale ngeen nekk ci seeni mbiri bopp ay till wiiri leen ginnaaw lekk xale bi ndeysaan saa yu ma jàngee saar bi ba egsi fii rek sama xel day dem ci ay xale yu góor yu ma gisoon ñu fekk ma ci filaawo yi ma toog ak ñu ma àndaloon ñu ñuy laaj xale bu réer ndeke ñoom dañoo ñëw ànd ak seen rak yóbbu ko géej xale bi lab ñu ragal wax xale bi lab na ñu dem ñibbi seen kër ne xale bi daa réer fekk xale bi dafa lab am na ku ko defoon ci ay mbaggam dugg ci biir géej gi di jéem a jaay ne mën na fay xale bi rëcc vague yi yóbbu ko xale bu am ay huit ans neuf ans ndeysaan noonu la xale ba demee ba ñu amee ba ñu defee ñaari fan ñett géej gi daal di koy génne fekk dee na baa ji tamit mi ngi nii ragal ne léeg-léeg nga gis mag bu ànd ak rakkam marché xale ba réer mu dellusi loolu moom dañ koy fekk fii ci jamono moo tax baa ji ne leen ragal naa ngeen yóbbu ko tilli yi lekk qaala inna firaaqa yusuf yulimu nii ma tàqalikoo yusuf def na ma metti daf may jural naqar ak ay métit ci kaw loolu lépp sax waxuma ko waaye daal fa inni axaafu an taxfalu anhu ragal naa ngeen sàggane ko fa yaakuluhu zibu tilli lekk wa huwa saxirun moom fekk mu ngi nekk ndaw laa yastatiu difaa an nafsihi du mun a aar boppam loolu daal moom laa ragal moo tax bëgguma leen jox xale bi ah comme bàyyi ji wax na ñoom it ña ngay tont qaalu ñu ne ko la in akalahu zibu wa nahnu usbatun wa inna idan la xaasiruun ci suratu yusuf ba tey aya 13 ñu ne bàyyi ñun dey bu ñu sàgganee ba till lekk ko la in akalahu zibu bu ko till lekkee wa nahnu usba fekk ñu ñu nekk mbooloo nekk fukki nit fukki ponkal ànd ak seen rakk ñu sàggane ba till lekk ko inna isan la xaasirun kon ñun ñu torox lañ ñu perte lañ nahnu asara min asabab ñun fukki jeune lañ al aqwiyaa yu am doole yu dëgër këng walan yastati u zibu an yasila ilayhi abadan papa kii till mënu ko laal waay fukki ponkal yu ànd ak seen rakk mu nekk ci digg bi ñu wër ko nu ko till di laalee falaw wasala ilayhi zib wa akalahu fala xayra fii na izan bis bu ñu sàgganee ba till ñëw pénétré ñu lekk ko ñun de kon yi ñun de ñun ñu alku lañ ñun de yàlla bu jàmm nekk ci ñun kon ñun de yàlla bu ñu texee kon ñun ñu perte lañ kon képp ku ñu laaya biir jaratu ko wa hakaza mbokk yi naka nii istaslama jébbalu na alwaalidu baay ji almiskin ju ñu yërëm ji ndeysaan baay ji daan nay jébbalu nangul na leen wax nañ wax nañ wax nañ ba tuur ko lëndëm wax nañ ba wër ko fekk baay ji xamul lu nekk ci seen ginnaaw pexe ñoom fexe nañ seen pexe bu yàgg dafa am lu ñu namm ñëw nañ nag tey këpp baay ji wax ba mu nangu wa nazala ala raxabati awlaadihi mu daal di wàcc topp bëgg-bëgg doomam moo tax baay walla jëkkër walla walla walla lu ëpp mooy da nga war a def attention ci say bëgg-bëggi doom bëri na baay ji topp bëgg-bëgg doomam doom yee ko alag da nga koy gis ci société bëri na doom ju daaneel société baayam bëri na ci suratu kaf di ngeen jàng yàlla mu ne xale boobu xudar rayoon ci digganteem ak Musa yàlla nee na xam naa xale bi bu màggee day def baayam yéeféer ndeyam ak baayam moo tax ma wax nañ ko rey balaa muy màgg fa amma alxulaam fa kaana abwaahu muminayni fa xasina an yuriqahuma tuxyaanan wa kufran gis ngeen bàyyi jaa ngi nii tey xale yi wax nañ ba wër ko ndeysaan mu daal di cëppeelu wàcc topp bëgg-bëggi doomam ay doomam li yataxaqaqa qadrullahi ngir li yàlla namm nag mën a am yàlla def na loolu ngir moom yàlla li mu namm dogal ko mu war a am wa yafqadu yaquba waladahu yusuf yaqub war a ñàkk doomam boobu tudd yusuf arbaina sana ñeen fukki at mu war a perte xale bi ndeysaan yusuf alayhi salaam wa mihnatil jubbi yusuf ak nattu teen bi comme baay ji nangu na léegi génn nañ ak xale bi wala ana qad zahabu bihi dem nañu ak moom wa haahum ulaa'i yunaffizuna al muamara an nukara ñu ngi nii nag di exécuter plan bi ñu tëraloon sunu borom subhanahu wa taala di nettali yusuf nan ko lii nga nar lii nar a dal la tey lii nar la dal du leen lu dul natt incha allah benn bis a ngi ñëw lii say mag di la def tey di nga leen ko nettali fekk ñoom fàtte nañ ñu jël xale bi teg ko ci kaw mbaam yi wër ko di raay ak fóon di dagg ci garab yi di ko jox yenn saa yi am ku tëb boot yenn saa yi am ku tingoom xale bi kontaan kanam gi leer gémmiñ gi ree ndeke pexe lañ tëral borom bi subhaanahu wa taala dañu nettali ba tey ci suratu yusuf aya 15 mu ne fa lamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayaabati al-jubb allahu akbar wa awxayna ilayhi la tunabbi'annahum bi amrihim haza wa hum la yash'urun ba ñu demee dañoo changé yoon lan lañ waxtaanoon démb mooy nañ ko dugal ci teen boo xam ne ay nit dinañ ci jaar ndax mën ko récupérer yóbbu ko bi leen seen papa joxee xale bi dañoo changé yoon jaar beneen yoon ñu jëm sóobu beneen àll boo xam ne ñoom musuñu fa woon jaar ñu dox ak moom loo xam ne bëccëg bi yëpp la ba déggatuñu benn bruit buy niroog doomu aadama ñu xam ne fii kenn du fi jaar ñu seen teen boo xam ne kenn du ci root amul ndox kenn ci ñoom jël paaka bëgg a rey xale bi kooku mooy yahuza moo ci gënoon yiis kooku mooy bàyyi yahud yi tey am na ci kenn ku tudd rawbil moom mu daal di tëdd ci kaw xale bi ne waxuñu woon lii li ñu waxante woon sunu biir mooy dañ koy sànni ci teen comme yàlla def na gis nañ teen jarul ngay génne paaka kon dugalal sa paaka bi nañ ko sànni ci teen bi rek dem ñibbi ñu ne wax nañ ko sànni ci teen bi ba tey mag jooju ne leen suñ ko jëlee ne ko bif ci biir teen bi mën naa faa fekk xeer mën naa bopp bi mën naa dal ci doj mën na faa fekk weñ bu samp weñ bi bënn ko mu dee ndax xamu leen lu nekk ci biir teen bi comme teen bi yàgg na fi aussi nit ñi naanu ji bu leen ko def noonu léegi ni ñuy def bàyyi leen ma dem dagg ci garab yi ma xas garab yi am na garab yoo xam ne boo leen xasee mën nga ci am buum bàyyi leen ma xas garab yi ñu am buum ñuy takk ko yoor ko ci biir bu yeggee ñu bàyyi ko fa ñu waddal buum bi ci biir mu fekki ko ñu ne ko waaw baax na demal nga uti xasi waa ji dafa teg ñaari mètre rek mu dégg lu ne bëm ci biir teen bi mu daw ñëw fekk sànni nañ xale bi yàlla def loolu ñu doon ragal fekk ñu ko fa fekk ko fa ci ndox mi la daanu ndox mu am xorom teen bi am na ndox mais ndox mi neexut loolu moo tax nit ñi isolé teen bi kenn du ci jaar waaye fekk na ci teen bi kiimtaanu yàlla bi xale bi yuuxoo turu mag jooju ay yooni yooni yoon mag gi dëpp bàyyi garab gi mu doon xasi dégg bëm bi mu daw ñëw sëgg ci pindum teen bi ci gémmiñ gi xale bi wax muy dégg waaye gisul xale bi xale bi gisu ko ndax teen bi dafa xóot mi ngi jokkalanteeg moom ay kàddu génne leen ma bu leen ma bàyyi fii naka ngeen nar a jàkkaarloo ak sama baay xanaa da ngeen a bëgg sama papa dee lu nekk xale bi wax ko nan lañ def mag gi sax moom kooku amoon na yërmande ba bëgg a fippu mais gars yi daal di koy jàpp ñett ko ñett jàpp ci loxo ndeyjoor bi ñett jàpp ci loxo càmmoñ ñu diri ko yóbbu bi ñu demee ay dix minutes ndeke am na benn jinne bu nekk ci biir teen bi jinne bi des na ñetti téeméeri at ci biir teen bi lan lay ut ci biir teen bi moom jinne bi Yuusuf la fi xaar ndax xamoon na ne dañ fi sànni Yuusuf fan la ko yégee moom jinne bi fan la xamee loolu ndeysaan ci histoire buñ ko doon nettali moom jinne bi xamal ko ne jamono ngi ñëw am na benn yonent bu tudd Yaqub dina am ay doom am na ci doom bu tudd Yusuf laqad utiya nisfal jamal jox nañ ko genn wàllu taaru mbindeef yépp taar bu doon téeméer Yusuf lañ jox juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent ñaataa ci des benn ñun ñëpp ñi ci àddina bi ci benn boobu lan am kon moom rafet na de ah juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi moom lañ ko jagleel ci rafetaay nit ñëpp ku nekk ñu coppatil la ci benn bi des ne la am ci nga jëlee rafetaay ndeysaan laqad utiya nisfal jamal loolu la yonent bi wax nee na rafetaay benn xaaj bi lañ xaaj jox yusuf leneen la ñu xaaj ko séddale ko nit ñi ñu ne yenn borom xam ñu ne lan moo tax ñu ne yonent bi yusuf moo gën a rafet yonent bi ñu ne non non yonent bi yusuf gënu ko rafet waaye yonent bi nit da koo mënul xool ba gis rafetaay bi nit da koo mënul ne jàkk kuñ dul xool kenn du gis sa rafetaay ndax kanam gi ni ko yàlla bindee wegaay bi mu am boo nee nii rek da ngay sëgg kenn mënu ko fixé xool ko ñaari minutes loolu doy na ci misaal arab bi ba yonent bi jógee màkk ñëw Médine mu dégg am na benn yonent bu nekk Médine di woote mu ne xaaral ma xooli ko bi mu ñëw dugg jàkka ji fekk mbooloo mi toog dafa wiiri rek ba jàkkaar yonent bi xool ko daan ne fa lammasta bantul wajha araftu anna al wajh laysa bi wajhi kazzab kii daal bi ma ko ne jàkk xool kanam gi xam naa ne borom kanam gi lu mu wax dëgg la yàllaa ko yónni kii du fenkat te pourtant laajtewul ana yonent bi laajtewul laajtewul dafa ko ne jàkk rek xam ne waa jaa ngi nii loolu moo tax ñu ne yonent bi mënuñu gis taaram borom xam-xam yi di ko misaal ñu ne mi ngi mel ni weer weeg jant bi bu gën a leer mais jant bi mënoo koo xool mais weer wi mais jant bi mënoo xool noonu la yonent bi meloon diggante Yusuf ak yonent yàlla Muhammad alayhi yonent bi kenn mënu ko woon xool ndax ni ko yàlla bindee dafa rafet ba boo ko xoo boo toogee moom da ngay am kersa pour siggi di ko xool mu ngoog mbokk yi Yusuf alayhi salaam sànni nañ ko ci biir teen bi falamma zahaba ixwatuhu min abihi ba ñu demee ba sori baayam di dellu siwaat ci seeni pexe ajmau ala an yajaluhu fi gayabati ljubbi ñu diisoo ne nañ ko sànni ci biir teen bi loolu lañ diisoo yàlla dee na yusuf ne ko lii ñuy def tey di ngi leen ko nettali ëllëg wa awxaynaa ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim haza wa hum la yashurun lii ñuy def tey un jour viendra yow yusuf di nga leen ko nettali sunu borom subhanahu wa taala mu ne sànni nañ ko nag waaye ndeysaan jibril moo koy fekk di ko wéttil waaw jinne bi xaar na ko foofu ba yusuf wax ak yusuf bi yusuf gisee jinne bi mu feeñu ko ci yorog melokaanu nit bi mu ne bëm ci teen bi rek mu wax ak frère mi ba ñu dem ba mu am dix minutes dal am rek jinne bi ne bu xeet ci biir teen bi taxaw ne ko laa shakka anta yusuf laa shakka anta yusuf laa shakka anta yusuf sikk nekku ci ne yow yaa yusuf xaar naa la fi ñetti téeméeri at génnuma fii fii rek laa nekk di la xaar ndax xamoon naa ne bis bii tey dina ñëw mu laaj ko yaay kan mu nettali ko